ba tax nag ñu bëgg a ñëw fii waxtaanal leen ci tuuti ba xam euh, gars yi dinañ ci ànd ñi nga xamante ni ñoo dëkkee diggante Fass ak Ndakaaru ak équipe yi bu ñu leen boolee ñan ñoo ci ëpp lu ñuy gagné ndax gis nañ Fass ak Fass doon na dox mais léegi am na lu jot tam doon na dox mais léegi gisatuñ mbër yu mag yoo te daa gis tey nag ñu teewal leen fii bëgg leen a waxtaanal ci loolu yaa bi nuyu naa la. waaw ah, lay fay sëñ bi ñu ngi siyaar waa Wassare Lamb siyaar nañ leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey ñu ñëwoon fii bëggoon waxtaan ndax dégg nañ équipe Fass ak équipe Ndakaaru leen bëgg a boole est-ce que boole boobu yéen ñi nga xamante yéen a dëkk ci diggante Fass ak Ndakaaru est-ce que loolu nu ko gisee waaw asalaamaaleykum avant tout maa ngi nuyu ñëpp su nekk si tur sa sant waaw waaw pour fusion bi nii pour mu nekk ñoom ñaar man am naa yaakaar ne war na mën a nekk euh, parce que boo xoolee làmb ji fu mu toll nii boo xoolee genn wàllu mbëri ñi si bëri ñi voyagé nañu ñi bàyyi nañu bëre ñi découragé nañu parce que làmb dox doxatul doxatul niveau boo xamante ne ñëpp war nañ mën a toog di ko xaar majeure partie bi ñëpp bàyyi nañ mais nag yàlla def na ne fi ñu toll nii Fass euh, nu nu mu mel nii en tant que écrit euh, demewul noonu ba nit ñi daan ko gis visuellement comme bu njëkk Ndakaaru moom waxuma la visuel rek mais dafa amatul benn vision boo xam ne complètement parce que gisatoo sax li bari comme nga naan mbëru Fass mbëru mbëru Ndakaaroo nga ni ñu ngi koy yenu yóbbu saat diw lay bëreel nekk ñun écrit Ndakaaru rarement koy gis léegi wala boo ko gisee sax bareetul waa Fass tamit la même chose bareetul xam nga ñi bàyyi nañu ñi dem nañ Europe ñi jël nañ seen yoonu bopp demeetul noonu. ñi bëreetuñ. bien sûr xam nga man daal su ma amoon li ma gënal wax dëgg yàlla ñu nekk benn def benn fusion bu dëgër kat yi wax na ko sax nee na Fass Dakar lay tudd bu boobaa mais loolu dafa rafet. boo xoolee face Dakar bi loolu rafet na booy yi nga xam parce que ku ne xam na ne mbër dafa compliqué mhm. du ma contact diw diw moo may jàppale diw moo may nangam est-ce yomb ci boole ay mbër mhm. si si sama yaakaar dina bo dina yomb loolu warul metti parce que boo xoolee kat yi moom mooy chef euh, écurie euh, Ndakaaru moom moo ko créé moom moo ko moom si yaa ngi dégg kon donc moom bu ci waxtaan ak ñoom ñu mel ni Moustapha Gueye ak ñoom Père Mbaye Gueye ne ñoom ñoo sanc Fass yaakaar naa du metti ndax kat yi ak euh, waa Fass benn la ñu c'est que tur yee différent rek ñii dañ ne Ndakaaru ñii ne Fass mais benn base bi la sorante su ma amoon lu ma gënal moom wax dëgg yàlla moom dañu nekk benn nekk benn écurie entraîné ndoo jëmandoo ci kanam du xàccee ndoo du dóorandoo mu nekk benn ku mën a ñëw liggéey ak ñoom nga na ne gis nga sa bopp ci biir écurie boobu nga ñëw ku munul nga dem ñu defar benn affaire bu dëgër boo xamante ne fii ci gox bi fii secteur bi du bëri na ay mbër bëri na ay yu bëri yu seewantu noonu mais yàlla xam na ne bu ñu dajale woon nekk benn dina nekk affaire bu am solo affaire bu doy waar bu am doole man ci sama vision quoi yaakaar ne loolu daal dina jëmal Fass kanam ndax Fass ku ne ku ko ku ko déggoon xam ne Fass université la woon mais léegi euh, dayoo bi doyatul noonu tur fi nekk mais mbëri dama noonu yow daal am nga yaakaar ne buñ ko boole woon ñoom dinañ bokk ci ñoo xamante ne dañ ciy gagné bien sûr bien sûr am naa ci yaakaar bu baax am naa ci yaakaar bu wér a wér a wér parce que boobaa loolu da leen yokk doole ñoom ñëpp parce que dina indi xam-xamam kii indi xam-xamam ñu dajaloo nekk benn te mbooloo mooy doole te mooy li ma boo xoolee euh, ne am na benn kilomètre de kilomètre pour mu mën am benn confusion non non benn lañu ñoom ñëpp c'est ñii dañu jaar boor bi ñu jaar boor mais boo xoolee benn secteur bi la amul 10 kilomètres 10 kilomètres lu leen séparé xam nga boo xoolee même secteur bi la man daal su ma amul lu ma gënal man daw ah en tant que membre euh, coordonnateur Thiam production ñu dajaloo nekk benn man daal loolu la amoon lu ma ciy wax ko kontaan naa ci ñoo far jërëjëf grand. kilifa gi maa ngi waaye ñu ngi lay fay. Euh, waa Wassare Lamb ah. Mhm. ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen waa jiwaay. Mhm. tey ñu ñu déggoon fan yi ne dañoo bëggoon fusionné équipe Ndakaaru ak équipe bi nga xamante ne mooy équipe Fass noo gisee lool yow mi nga xamante ne dëkk ci diggante Fass ak Ndakaaru. waaw mais loolu lu war a am lu yàgg la sax parce que booy xool xam Ndakaaru léegi kenn kenn nekkatu fa. xale yi fa nekk presque Fass lañ dëkk. xam nga écurie Ndakaaru écurie Fass écurie Fass bennoo sax dafa war a bokk ci écurie Fass mu doon benn écurie. ok comprendre Fass ak ñooñu ñëpp. parce que tamit mënuñu ñëw fekk fi écurie Fass ba pare ñuy créer ay yeneen écurie xam nga bu fekkee écurie Ndakaaru la suñu papa Kati Diop Fass la nekkoon. moo formé ñoom Moussa kon loolu sotti ek def ci la. Mhm. xam nga man xale yi laay waxal nag nañ dem bootu ci écurie Fass mu doon benn écurie loolu moo jaadu. mais est-ce que loolu dina yomb ku ne xam ne ne mbër dafa bëgg gàllaaj ku ne xam ne ne mbër dafa bëgg ay euh, kii bokkuma ak moom kii mënuma contact moom wala ki mënuma def moom est-ce que buñ boole woon loolu doo jàpp ne dina am problème. non non loolu ça n'a rien à voir parce que du ñu bëre. Arafas du day waa Fass du ñu bëre waa écurie dina bëre ak ñoom ah? anti dina bëre ak waa écurie Fass ah? kon nañ ñëw def ko benn. moo gën ko quoi sunu papa yooyu lépp lu ñu xalaat ci làmb rek jaaru na am na fu ñu ko teg parce que ñoom ñoo ñu ci jiitu ñaar téeméeri yoon. mais loolu bu ñu ko defoon nga yaakaar ñun ñoo ciy gagné. non loolu ñoom ñëpp parce que tey imaginer tey ñu ñu doon benn bloc benn bloc ah loolu yow loolu yow euh, Fass Ndakaaru Fass Benno loolu Magal Touba la. barki Seydina Mouhamed loolu affaire bu garaaw la dañ ko war a def. xam nga ay Ada Fass ñu formé fee écurie écurie Ndakaaru dëgg la amoon na ay tet amoon na ay suñu ay mag yu baax ay ñoom Yékini xam nga ay grand yu fa nekkoon ñoom seexu Diène xam nga ñoom Bismi xam nga Yékini Junior ñoom ñëpp kenn kenn nekkatu fa comprendre nga kon xale yi fa nekk ah ay ñoom Tonnerre 2 ñoo fa nekk xam nga te Tonnerre 2 xam la ñu ñëw ak waa écurie Fass xam nga suñu papakat yi moom lii bu fekkente ni ñoom ñoo ko nas lu raisonnable la lu jaaru la. Euh, bu ñu weesoo loolu dañoo déggoon fan yi ñu doon wax euh, nu ñu koy waxee waaye ñu doon wax euh, huis clos boobaa ak léegi ñoo ngi ci wax am na ñoo xamante ne d'accord nañ ci am na ñoo xamante ne d'accord ñu ci woon mais ñu jékki-jékki couvre-feu bi am est-ce que làmb yaakaar nga ne jamono ji fi mu toll nii dina amati saison bi. non soo bëggee dégg dëgg jawrin comme ni ko Baba Baba Baba Diaw waxee ñun sculpture ci am production lañ lañ bokk. comme comme comprendre nga ni mu ko waxee noonu la demee lamb dañ ko fàtte boo bëggee dégg dëgg dañoo fàtte lamb nga wax. parce que Seydina Mohamed. du nga wax loolu. mais sport yëpp a ngi daw ñëpp a ngi koy def ci huit kilo ñu leen di jàppale mais pourquoi pas mënuñu jàppale bailleurs yi ah. yow da ngay gis benn promoteur yor benn vingt millions wala quinze millions am pourtant mënoon na ko dugal ci leneen mënoon na jënd ay business am leneen te day jur comprendre nga mais pourquoi pas du leen teg loxo xam nga ministre bi président bi laay lancé message xam nga na jàppale gars yi jox leen ay moyens ñu jàppale mbër yi boo jàppalee promoteur mi ngi mel ni mbër yi nga jàppale ñoom ak kenn mënul dem bàyyi sa morom loolu waa kontaan naa ci kontaan naa ci waa wasaare lamb ah yow dama lay suivre bu baax xam nga ñun ay amateur lañ ay promoteur daf ñoo dab. mais ay amateur lañ barki Seydina Mohamed lamb képp la ñuy dund. waaw di la ñaanal gudd waaw gudd fan ca kaw ca kanam ah.